mu ne gannaaw nag sant yàlla ak julli ci yonante tagg saxaaba yeeg ñaanal leen ngërëm li ko tax a jóg nee na mooy bëgg a defal ñenn ci taalibe yi lu ñu sàkk woon ci moom ndax ñenn ci taalibe yi dañoo sàkk woon ci moom mu taalifal leen taalif woo xam ne dañ cey mën a xame teggiin ndax bëgg amé ay teggin rek té mu loolu kat wara war la mënta ñàkk ndax ku bëgg tok yalla bëgg am ngërëmam te boole wo ci teggin do am ngërëm la dañ lay xañ ngërëm la xañ la téxé xañ la jariñu teggin mom moy lepp teggin mom day néna lepp li na am kom la mudul jeex teggi na ko gën unit, lu nit jàppe teranga bëgg ko def teranga bëgg ko def daraja na xam ne teggi na ko féete kaw teggin moom day tax nga sori sawara jege àjjana teggin day leeral sa xol say dëkkandoo di la tagg ka ñaanal ndax teggi leen gis nga amé ko ne motax bu juk fi saasa saasa dal leen di bëgg talifal téer bi maa ngi yaakaar ci yàlla nag mu gërëm ma ci taalif gi ma taalif téere bi faye ma ci tuyaaba ju amul app taalif yi nag nee na dama fekk lu waaju baax wesaroon ku tudd ma way ko nag muy téere bii maa ngi ñaan nag yàlla maye ma ci pajub aajo maye ko ci bokki jullit yi bokki taalibe yi li tax nag ma taamu wesaru sang boobee mooy damaa gis mu gàtt ba noppi daanaka lu kër yi tasaare woon ci seeni téere rek menn moom rek dajale na ko ci wesaram woowu nga xam ne soo xobee wi saroo way ko day mel ne boole nga mboolem téere yépp yëpp way lépp nekk ci benn téere te mu ne noonee mu def gàttal ba noppi ëmb lu baree bari xéewal la lool ndax lu néew loo xam ne soo ko toppatoo mu doy la moo gën di lang-langee lu bari loo xam ne danga cey cay sonn te xëy na sax doo ca jariñoo noona dama fekk wesaru sang boobee ma way ko muy way wii nga xam ne ëmb na njariñ yu baree bari te xam naa ne loolu lépp mbaaxum yàlla yàlla mi nga xam ni moo warlu aar nu fegal nu nun ñi xam naa ni mbaax ma ngënee moo tax téere bi ëmbe nii ay njariñ yu baree bari matalee nii li ëpp ci li ñuy yittewoo ci teggiin moo tax nag may yaakaar ci moom yàlla taalif gi ma taalif téere bii mu maye ma ci ngërëmam maye ma ci mucc ak njëggal rawante na ci bis ba nga xamee ne ci la ñuy gën a taamoo mucc ak njëggal te mooy bisub ragal boobee muy bisub penc boobee mu ne yeen ñi nga xamne nak nag wut yalla ba tax ngeen di bëgg amé teggiin yeen ñepp ma ngi leen di denk, te di leen dénkaat téré bi ngeen japp ko bu baaxa baax ndax ëmb ci ay jikko yu rafet ak lim ëmb ci ay teggiin ku ko xam te japp ko jëm ko jëfe rek loola mën na laa ba nga bokk ci ña jub jub bokk ci ña jariñoo jariñu bokk ci ña texe texe li téere bi ëmb ci luy jubal nit ak lu koy jariñ bari na bariwaay boo xam ne képp koo xam ne danga ne yàlla laay wut te muy dëgg ci yow doo doyal mukk ci téere bi téere bi du la sàppi mukk mukk te ne ki door jóg di jéem a xam teggin ak di ko jéem a xañtoo ka topp moo ko defee ne àgg na ci xam ak jëfe teggiin ñoom ñëpp ñoo yemoo ci ku ci ne mën ngaa jariñu ci téere bii téere bii njariñul ñëpp la kay door a jóg di xeñtu teggiin ak ka defe ne àgg na ca àgguwaay ba ci teggiin ñoom ñëpp ci mën a jariñu yiw yu téere bi ëmb daal amul fu muy yem ndax ne téere bi leeral na wax na nañuy def ba amee jikko ya gën rafet daldi am pajuk aajo téré bi né da koy tudde nahju qada'il haaj yoonu faj aajo nga xamni jang téré bi xam ko diko jëfé day tax am pajug aajo teeg ëllëg né dama fekk nak la addal haaji yi saron ma soppi ko way nak tudde ko tur woowu maa ngi ñaan yalla nak ci mbax ci ngeenelum mu nangul ma te mottalil ma jëf ji maa ngi koy ñaanit ni ma tuddee téere bi téere bi far mel noonu ci biir biti nga xam ne képp ku ko jàng rek mu daldi yéwénal say mbir nga am pajug aajo daldi taxe faaw maa ngi doon ñaan yàlla lépp lu mu taamuwul ci ab jaamam rawante na xeeti caay-caay yi nga xam ne ngistal ca la bokk mooy jëf te yàlla taxut ak jaam bi di gis dara ci boppam lépp luy xeetu matadi gu mel noonu rek maa ngi ñaan yàlla musal ma ca faw ba noppi nag takkaayale ma mboolem gëneel yi nga xam ne moom la taamu ab jaamam melawoo ko takkaayoo ko maa ngi koy ñaan mu musal ci ayu iblis mi nga xamee ne dafa féeteerlu ne du topp te boole ca ne ñépp daañu mel ni man aw fi aw nu bokk bu ëllëgee fu nu jëm maa ñaan yàlla musal ma ci iblis moomu musal ma ci ayu lépp lu amu ay ndax yàlla moom moo sàkk lépp kon nag lu mu sàkk tem amu ay moo xam ci suuf la nekk moo xam ci asamaan la nekk moo xam ci diggante bi la lu ci man doon rek maa ngi koy ñaan mu musal ma ca nee nag gannaaw ba ma ñaanee yàlla mu dolli teranga ak jàmm yonante beeg ay mbokk ma ki saxaabaam dama koy dolle ñaan mu may ma sax ci topp sunnaam bañ koo wàcc ci genn wet matale topp ga na mu gën a rafete bu ne nag tërjumaani téere ju kat foofu la yam dama bëgg jëm nag ci li ma tax a jóg te mooy jàngale leeral mbirum teggiin ba ku ko bëgg a xam man koo xam man koo topp